cant yi ak ngërëm it dañ koy dale ci sëriñ Seck mi nga xam ni mooy suñu mag te def fi daara ji te dekkalaat daara ji ak ñi mu ko àndal ci turu sëriñ Fallou Seck ak sëriñ Talla mbay ñu ngi leen di nuyu ci turu dëkk bi te di leen wax ni nun waa dëkk bi ñun ñi nga xam ni ñun lañ seqal dëkk bi te seeni ndaw nekkal leen fi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci seenu taxawaay bu rafet ci suñu diggante ak ñoom wax dëgg yàlla daara ji 2008 la tàmbali seetlu naa ni 2008 ak léegi ñaar fukki nit ak ñett tari nañ ci biir dëkk bi ñaar fukki nit ak ñett mokkal nañ fi alxuraan loolu nag ku ne xam na ne mënul woon a amee lu ci lu mel nii kon sëriñ ñi ngi lay ñaanal sama borom guddal saw fanta yokk sa wér ak mboolem ñi nga àndal liggéey ñi ngi nuyu ñi nga xam ni ñooy jàngalekat yi ci njiital sañ Modou Gueye bu ñu ko tuddee tudd nañ jàngalekat yi alquran yépp waaye bu ñu tuddee monsieur Sarr tudd nañ mboolem ñu aju ci école bi di nuyu ñi nga xam ne ñoo jiite waañ wi muy soxna ma ami silla waaye di nuyu soxna Daba Ndiaye mi njiitul jigéen ñi ci wàllu foot bi ñépp daal ñu leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla sun borom barkeel seenub liggéey te defal leen fan wu gudd akub wér ba liggéey bii liñ ci yéene lépp sun borom mën koy yegge fa nga xam ne fa lañ ko yéenee ci barkeb Seexul Xadim may sant bu baax a baax di jaar ci tànk ñi fi jaaroon rek di sant ñi nga xam ne ñoo dekkal daara ji yeesal liggéeyub lislaam bu rëy bii comme tàmbalee sori na waaye du ma guddal damay tàmbalee ci ki ko yeesal te jiitu ci seen kanam muy alaaji sëriñ Seck jaar ci Talla ak ah, alaaji Seck ak sëriñ Abdou Seck ñu yóbbaale ñi ma tudd jaar ci sëriñ Mouhamadou Gueye mi nga xam ne moo jiite daara ji ci wàllu jàngale ak mboolem ñim ko àndal di leen sant cant bu yaatoo yaatu ci turu way juri ndongo yi cant koo xam ne seen lamiñ mënu koo laal ndax li ngeen leen defal mënuñu ko seen yaakaar tasewu bi te yàlla bu seen yaakaar tas yéen itam yal na yàlla yeggale seeni yéene ak seeni naal ci njaboot gi yal na yàggale yeggale seeni yéene ak seeni naal ci lislaam di di soññi sama bopp nag di soññi way jur yi ndongo yi ndax wax dëgg yàlla cant gi ñuy sant yaatu waaye nan ci jàpp nun tam ndax lii dafa war a sax dakk dakk dakk suñ fi teewee ak suñ nag dañ cee war a jàpp bu baax te da ci xëri gi ñu di ci jàpp moo tax tey moom fa bu ëllëgee itam mën a wéy ndax lii kenn daa amul lu ko wecci ndax euh, wax dëgg yàlla euh, wax nañ ko fu ne déglu nañ ko itam fu nekk xale yi jóge ci daara li yàlla li leen yàlla dig ëllëg tàmbali na ko wone fii ci adduna ndax ñeewuñu kenn bañ doonee ay mukallaf kon loolu ñun ñi nga xam ne nun la yàlla séddee nu jamonoonte xale yi tuuti yi indi leen fi war nañ cee sant cant gi nag du wax ci làmmiñ kese waaye dañ cee war a dañ ko war a jëf mooy kenn ku ci nekk la nga man ci jàpp ci wàllu moyen ci wàllu xel mu ci wàllu soññee ci wàllu taxawu sa doom di ko soññi kenn ku ci nekk la nga ca nga def ko la nga ci mën nga di ko jéem ñi nga xam ne yàlla dogaloon na ñu jaar bi ba génn itam nu di leen soññi nun way jur yi ndax yaakaar naa ba léegi génn guñu ak ak topp ba léegi war nañ cee man tax ñu leen ñu jàpp ci mbir mi bu baax a baax ndax mu sax fi dàkk gi nag dafa am ñoo xam ne ñoo ko yeyoo mooy li nga xamante ni mooy li fi am lii fi tax a daje mbooloo mi yàlla dogal mu amee ci seeni barke bu ma ci tuddee ku mel ni sëriñ Seck rek day doy waaye dafa jël lépp jébbal ko Serigne Fallou Seck muy jàmbar lool ci liggéey bi macha allah. moom it ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax ci taxawaay di sant Serigne Talla Mbaye moom it mi ànd ak moom liggéey bi wax dëgg yàlla ñun de ñu ngi leen di sant sant goo xamante ni kenn xamul fu mu toll ndax lu tax ñu leen di sant mooy man personnellement en tant que général bépp ndongo bu fi tawat danaa jokkoo ak ñoom maa leen koy seedeel yéen mbooloo mi di ko seedeel yéen parents yi ñu yërëm xale yi lañ billaahi dama koy waat di sama loxo si kaw ñi ngeen ko séq ak ay góor lañ ñu bëgg xale yee ngi nii xale yi manqué wuñ dara gone dina fi feebar ñu faj ko ba wéer wér macha allah te waajuram du ko yëg loolu damay profité occasion bi di sant ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi ñoo nekk ñaaxeen ñoo nekk ndamen ñoo nekk cilmaxa muy infirmier yi wala infirmières yi nga xamante ni ñoom laay jokkoog saa su ndongo bi yéegee ak tawat ci yaram bi wax dëgg yàlla ñoom it dañ koy jàppandal lool yombal ñu ko lool ndax dañu xam ne fii mbirum alxuraan la fii mbirum daara la kon kàddu yooyu mënul woon a ñàkk ñu yëkkati ko ndax ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñoom ñoo jiite liggéey bi am na loo xam ne ñoom mënuñ koo wax ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji ñun ñoo leen ko mën a seedeel yéen waajur yi di leen wax ne ngeen gën a dalal seen xel ñii ngeen dénk xale yi ñu mat ndénkaan lañ doomoo nañ leen lépp loo xamante nii rek xale bi bëgg na ko ci faj ci xéewlu ci xam-xam lépp loo xamante ni bëgg nañ ko rek boo leen ko waxee balaa balaa balaa jant soo dañ ciy taxaw kon ñu jar a ñaanal lañ ndax am na ñu am wërsëg te seen maanaam maanaam maanaam seen wërsëg jëmalewuñ ko ci alxuraan waaye yàlla dogal na macha allah suñ borom dénk leen wërsëg waaye seen wërsëg ñu ngi ciy liggéeyal alxuraan. balaa ñuy tàmbalee suñu waxtaan donc dañ leen bëggoon digtal ñaari discours benn bi en arabe muy euh, Serigne Fallou Ndiaye élève en classe de CM2 moom moo koy suñu noppee ñu jox beneen bi Ndeye Sylla. élève qui est élève en classe de C2 aca bismillah sëñ Fallou alhamdulillahi rabbil alamin الذي جعل السلام وسيلة لا غنى عنها لتحقيق هدف الإسلام في الأرض قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال أيضا في سورة يونس والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال أيضا في سورة الأنعام لهم دار السلام عند ربهم والصلاة والسلام على أسف المرسلين سيدنا المستمل بالسلام وآله وأصحابه الكرام السادة الإداريون الأعزاء أيها السادة والسيدات الأجلاء أيها الحضور الفضلاء نرحب بكم جميعا في هذا الحفل المدرسي الذي سنختم فيه سنتنا الدراسية هاته ونوجه إليكم أطيب تحية وأزكاها ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فبشرى لنا اليوم لحضور شخصيات الأعزاء في حفلتنا هذه أيها الحاضرون والحاضرات الشرفاء فمن الواجب أن نوجه خطابنا إلى شيء مهم ألا وهو السلام في وطننا السنغال مبينا أسبابه وأهميته وآثاره ولكن قبل ذلك سنقوم بتعريف بسيط عن السلام السلام بمعنى السلم وهو ضد الحرب أو القتل أي الحياة من غير حروب ولا صراعات أو سفك دماء أو انتهاك لحقوق الإنسان ومن أسبابه أيها الإخوة أولا العدل وهو إعطاء كل ذي حق حقه بلا إفراط ولا تفريط ثانيا التفاهم والتسامح والانسجام بين أفراد المجتمع ثالثا إتاحة فرص العمل للشباب والسهر على حفاظ عن أيدي المفسدين رابعا عدم استقدام القوة ومرافقة الأطراف ومن أهميته أيها الكرام أولا لا يمكن الإغفال عن الدور الذي يلعب به السلام والتصالح والمودة والرحمة في استقرار المجتمع ثانيا وبه يمكن للناس تلقي العلم ونشر الثقافة وبناء المجتمعات والنهوض اقتصادي واجتماعي ثالثا إن الحروب تدمر ولا تبني أما البناء فلا يكون إلا في أوقات السلم رابعا الحروب تخرج أسوأ ما في الإنسان أما السلام يظهر أحسن وأفضل ما فيه خامسا بالسلام يصمو الإنسان إلى آفاق الروحانية العالية أما آثار أيها الشرفاء أولا إن السلام من الوسائل الفعالية لتحقيق الوئام والوفاق بين الشعوب ثانيا أنه عنصر مهم في تقدم المجتمع وتنميته وإقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع بقية الدول ثالثا أنه يسأم في ازدهار الدول وتنشيط سياحتها وأخيرا يحفظ آثار الدول وحضارتها ويؤكد على ذلك قوله عليه السلام lan tadxulu ljannata xatta tuminuu walan tuminuu xatta taxaabuu alaa adullukum ala cheyin ida faaltuhu taxaababtum qaalu maa huwa ya rasul allah qaal ufshu salaama baynakum wa liqawli cheikh alxadim radi allahu anhu wa ardaa lama su'ila anhu qaal lam aclam xayran min alsalaami fi ldunya wa fi alaxira ixwati alkuramaa ما نزال نذكركم غاية الشكر وندعو الله لكم السلام والأمن والعافية وأن يتم جميع مشروعاتكم وعلى رث هذه المشروعات فضيلة المريد الحاج سيد سك وجميع من شاركه في هذا المشروع القيم وكذلك المفتشون والمعلمون وأولياء التلاميذ وإلى اللقاء الآخر مع التمنيات لنا ngi woon Ndeye la moom mi ngi mokkale alxuraan daara bopp Sylla daaw la fi ñëw en classe de CICP ren mi ngi def C1 c euh, il avait eu de sept et ma def ci benn commentaire bu ndaw donc ñu discours ñaari discours yëpp ñu ngi ko axé woon ci ñaari koñ benn bi muy jàmm ci réew mi ak surtout ak violence yi nga xam ne mi ngi am ci milieu scolaire parents yi lan moo di war a lan moo ci war a doon seen taxawaay ndax ñëpp xam nañ dëkk bi fi mu toll nii si at si jàppan yi si ginaaw amoon na ay yëngu-yëngu waaye si sunu yëg-yëg bu ndaw li ñuy xalaat moo di waajur yi ñoom ñoo war a jël seen responsabilité ba xale yi surtout ñu bañ si loru ndax eh, ñuy suivre réseaux sociaux yi dégg na si ñu bëri ay élèves ay étudiants yoo xam ni ñii faatu nañ si ñii am nañ si ay gaañu gaañu ñii seen jàng jaare na fa yàqu te loolu lépp ba mbirum violence la si loo xam ni amaana mënoon na ñàkk loolu mooy benn accès bi surtout beneen bi ñu ngi ko accès woon aussi sur utilisation de l'internet par les élèves benn anecdote laa si bëgg a nettali en classe de CICP dañu amoon benn élève ba nga xam ni bi ñu defee composition moyenne dix sur lépp si matière yëpp en français comme en arabe lépp moyenne dix la am bi ñuy rendre notes bi may waxtaan ak élèves bi man leen man jàng naa lu ëpp fukki at ak juróom-ñett jàngale lu ëpp fukki at ak juróom waaye musuma bis musuma dégg élève ba nga xam ne dafa am dix sur dix en moyenne générale muy euh, performance boo xam ne man daf ma yéemoon sax waaye élève boobu bi mu passé en classe supérieure dem ba ren ñu war a def euh, classe de CM2 mu commencé utiliser portable mais niveau dafa wàcc dafa wàcc tellement que élèves yi nga xam ni moom bi muy jël premier moo ñoom élèves yooyu quinzième lañ doon jël élèves yooyu ñoo dem ba léegi di ko raw ba ba ëpp ko niveau kon waajur yi am nañ taxawaay ba nga xam ne war nañ ko taxaw surtout si seeni njaboot si utilisation Euh, internet bi mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi nuyu fi teew ñépp jël nuyoo bi nag tàmbali ko ci ñi waral bis bi su ma waxee ñi waral bis bi nag mooy sëriñ daara yi ak ndonga daara yi ci ñooñu lay tàmbalee sama nuyoo di leen ndokkeel di leen sargal di ñaan tu tànk yi nga xam ne ñoo fi ñëw di yëkkati alxuraan ci suba ba léegi suñu borom barkeel leen euh, def leen magi lislaam ba lii ñu fi teewe tey kenn ku ci nekk soo fi jógee fa dellu fa nga jóge woon nga taxawal fa lu mel nii loolu rek moo mën a téye réew mi maa ngi nuyu suñu mag sëriñ sek di ko sant bu baax a baax waxoon naa ko fii daaw ñun kàdduy cant ak ngërëm lañu ko ameel ndax suñu suñu boroom nattoo teg ñu ci boppu commune bi ñu dénk ñu njàng mi ak njàngale mi li muy def fii lépp ci bayti ñun la waroon comme lu fi def rek ñun la ko defal askan wi la ko defal maa ngi nuyu monsieur le sous di ko dalal fii ci bayti sec suñu dëkk la Bayti Seck bopp si la kon ñi ngi lay dalal di la tatagal ak sa adjoint bi nga àndal ak commandant gendarmerie bu Pekes maa ngi nuyu waajuru ndongo yi fi teew yépp nuyu waa dëkk bi ak képp ku yëngatu ci daara ji kàddu yi nag dina gàtt ndax ni ma koy waxee rek cant du paase cant monsieur le sous-préfet kii dama ko woo defoon na discours ba pare waaye boobu accès guloo woon ma wax ñii ne leen may leen ma ci sama kàddu discours bi nga xam ne waxoon na ko mu waxaat ko ci kanam sous-préfet ndax dafay am lu am solo réew mi jaxasoo na at yi ñu génn weer yi ñu génn fan yi ñu génn lépp ci ab jàppante loolu li koy waral mooy ñàkk xam sa bopp ñàkk xam sa diine ñàkk a dégg sa diine ñàkk xam sa bopp ñun bi ñu ñu dénkee commune bi ci compétence yi ñu dénk njàng ak njàngale bokk ci dañoo wax ne ñun dañuy jël njàng ak njàngale def ko suñu priorité waaye ñu fekk fii ci njàng mi ak njàngale mi daanaka daawuñ ci dugale daawuñ ci dugal njàngum diine wala njàngum alxuraan dañ ko xawoon a desal ginnaaw te ñun ñu gis ne loolu rek moo mën a jubbanti aw askan bi ñu ñëwee ñu ne lépp lu ñu jox ci lu jëm ci askan wi jëm ci njàng mi ak njàngale mi dinañ ci jox daara seen wàll ba mu mat sëkk ci loolu lañ ko tàmbalee ku nekk nag dañoo xam dañoo nekk ci réew moo xam ne ni ko wolof di waxee kuy yoot doo sëqat nu tàmbalee woon ci mel ne dañuy compal sëriñ daara yi budget bi su génnee ñu am luñ ci génne la ca des ñu dem yalwaani en tant que ndongul daara dolli leen ci jox leen waaye nuy dem ba at yi ñu génn ñaari at ci ginnaaw suñu boroom dogal na lépp loo xam ne commune bi génn na ko ci budget mu jëm ci éducation njàng ak njàngale la ci ëpp ci daara yi lay dem ma waxaat ko fii nag daara jii muy daara yi ci Seck commune bi mosu fee dugal dara ndax sëriñ bi nga xam ne moos dekkal daara ji yor ko ak rakkam yi mu ko àndal dafa wax ne ñun de bokk na ci li ñu leen mën a dimbalee lépp loo xam ne war ngeen koo indi ci daara ji yóbbu leen ko ci yeneen daara ndax su juróom baaxee nañu ba foofa lu ñu fay def danañ ko fa mën a def indiwuñ wuñ fi ak basan indiwuñ wuñ fi ab téere indiwuñ wuñ fi alluwa indi fi saxal indi wuñ fi dara lépp moom moo ko defal boppam lam waroon a am nag ñu jël ko ñun yóbbu ko ci yeneen daara yi monsieur le sous kii taxaw sama doom la bopp si la la jànge mokkal alxuraan ñu dugal ko ci école bu bayti bii muy def CICP C1 C2 déwén la war a def sem 1 sem bu ngeen di gisee may joxe misaal mi àddina ñaar rek moo fi nekk li ngay waajale sa àdduna ak li ngay waajale sa àllaaxira ëllëg ñu ci bari dañu jël seen doom ne dañ koy dugal école français ndax bëgg nañ mu tekki ba mën leen a jariñ waaye man ma jàpp ne mbir mi du foofu wala du foofu rek kon sa àllaaxira pour nga waajal ko ab jullit nga il faut nga jàng alxuraan il faut nga jàgg diine nga dégg diine kon dañuy jël suñu doom yi nampatal leen ci diine jàngal leen alxuraan bu ñu demee ba xam ca lañ ca war a xam du tee danañ continuer di leen nampatal ci diine waaye nag ñu soog leen dugal ci école tubaab bi ña nga xam ne jëloon nañ seen i doom dugal ko ca jàng duñu leen alxuraan wala teel nañ leen a génne ñii dañ leen di dab ba leen kon misaal bi ma bëgg a joxe rek ku ci am sa doom am lu mel nii place yu mel nii mu war a yaatu ci réew mi damay wax ne monsieur le préfet fii ci Bayti Seck administration waroon na ci at mi lu mu néew néew mu ñëw fi visite ñetti yoon xool investissement yi mu fi def xool ndongo yi lu ñu tooge xool promoteur bi lu mu fi def pour yéen bulletin yi ngeen di jël di ko jàllale ci kaw ñu xam ne réew mi kat am na sëriñ sekk ci ruq sàngam ma ngay def nangam te loolu président la waroon dana soññi ñeneen ñi dana tax président tamit orientation yi muy jël mu mën a jëlee exemple ci yu mel nii ndax ñi ngi investir lu bari ci daara yi ñi ngi investir lu bari ci diina ji waaye gëm naa résultat yi fii di am mënuñu ko amee ci yeneen yi kon lu tee kon ñu mën a jël exemple ci investissement yu mel nii waroon na bu ñu toogee ba mu yàgg commandant ñëw fii gendarmerie ñëw visiter locaux yi wër dëkk bi xool seen jataay ba xool nu ñu tooge ndax ñii kat du ñoom ñooy dem ci sànni ay xeer du ñu taal ay pëna du ñu lakk ay université du ñu lakk ay daara te loolu bu amee yaakaar naa commandant seenub noflaay lay doon kon lu mel ni yaatu woon ci réew mi jafe-jafe yu ñu dund ci weer yu ñu paase dana wàññiku yéen seen liggéey dana noppale jaadu woon na bu ñu toogee ci biir at mi lu mu gàtt gàtt inspecteur de l'éducation et de la formation ñëw def fi visite def ay rapport am yónnee ko IA yónnee ministère de l'éducation ba ñoom tamit taxawaay buñ ñu ci war taxaw ñu war ko cee taxaw dañ maa waxoon ne cinq minutes laa am mi ngi guddal monsieur le ñii xale yu ndaw lañu mën nañoo wax ne xamaguñu àddina waaye li xew ci réew mi ak seeni professeurs yi leen di jàngal ñu ngi leen di nampotal ci dugal ko ci seeni xel ba bu ëllëgee ñoom ñu mën a moytu lu mel noonu discours bi mu def ci wàllu jàmmu lañuy wax ak nu ñuy sàmmali nit ki ak xam ak fam nu ñuy sàmmali nit ki alalam nu ñuy def ba jàmm mën a am ci diggante askan bi loolu moo taxoon ma ne leen defoon na diskuuram ba pare waaye su ma jëlee sama kàddu ñu may ma ci li ma war a mu liiraat discours bi sous préfet mën koo dégg administration man koo dégg ñu yóbbaale ko ñu xam ne bu ñu bëggee kat réew mi nekk ci jàmm bu ñu bëggee ak dal am ci réew mi bu ñu bëggee àq ak yelleefi doomu aadama bi ñu sàmm ko yu mel nii dañu war a gën a favoriser ñi ngi sant ñëpp gërëm ñëpp ma jox ko mu liir discours bi sous préfet nga dégg ko bu baax a baax liñ ci wax ci xale yu ndaw yoo xam ne mën nañoo wax ne xamaguñu dara ci événement yi am. Mesdames et messieurs, ces honorables invités, chers parents, chers professeurs, chers élèves, bonjour. Permettez-moi de partager avec vous ces mots qui portent sur la paix et sont importants dans le développement de notre société. Mesdames et messieurs, certes, définir la paix n'est pas une chose aisée. car elle peut avoir autant de définitions en fonction du contexte et des sociétés. Mais vous partagerez avec moi que la paix est l'absence de toute forme de violence envers son confrère. C'est pourquoi il est important de connaître les facteurs qui permettent l'installation de la paix au sein de notre société. Pour cela, Il faut s'aimer au sein de la société. La graine de l'amour, la solidarité, la tolérance et le respect mutuel des droits des uns et des autres, ainsi que le respect de la diversité culturelle et religieuse des individus. C'est ainsi qu'on peut constituer la paix afin de pouvoir aspirer à un développement de notre pays. car sans la paix, le développement n'est qu'une illusion. Merci beaucoup, chers invités. Nous vous remercions pour votre attention. Que la fête soit waaw yaakaar naa préfet dégg nga ko bu baax a baax te eh, thème bu ñëw ci waxtoom la eh, lu bari dund ngeen ko xam ngeen ci xam ngeen ci loo xam ne man xamuma ko kon boo déggee wax ji mu jóge ci gone yii te ñu ne la ñoom mokkal nañ seen alxuraan ñu ngi jàng seen diine te ñu ngi toll ci classe semm cm kon ñii buñ leen bu doonee garab gu ñu jëmbat ñu suuxat ko jëmale ko yaakaar na danañ am meññeef moo xam ne dana wuute ak li ñu gis ci suñu société bi ñu ngi sant ñëpp di ballu àq ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ci jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi nga xam ne teew nañ fi kilifa aada yi nga xam ne aussi teew nañ fi dolli ci monsieur le maire mi nga xam ne moom moo jiite commune bu ñaaxeen euh, teg ci aussi chef de village bi nga xam béyti bu bopp si bi nga xam ne béyti fi la bokk mais aussi kilifa yi nga xam ne ñoo nekk fii ci béyti di jagleel nuyoo aussi bu spécial ki nga xam ne moom lépp li am nii ci loxoom la jaar ci bëgg-bëggam ci mën-mënam ak lépp li nga xam mu yegg si fii muy Serigne Seck ñu koy nuyu di ko ziar di ko gërëm encore une fois di ko sant je pense monsieur le maire am na lu mu wax ci administration la bokk donc wax na loo xam ne euh, taxawaayu administration la je pense que xëy na jaratul ñu ciy te li mu wax lu am solo la li ma ciy téye rek mooy taxawaay bi nga xam ne administration war na ko am jëmale ko ci gox bi mais jëmale ko ci bërëb bi ak fii nga xam ne dañ fi tàggate ay ndaw defe naa li mu wax loolu lañu waxoon ci benn walla ñaari at bi ñuy sargal soxna si nga xam ne moo fi jëloon troisième ci concours national bu alxuraan bi que ni ñun ëppalee nañ ñu bëri ci loo xam ne dafa jóge ci daara yi parce que bu ñu gisee feneen xale yi di jóg di taal di jóg fii nii amuñu ko parce que dañ leen tàggat ci alxuraan yar leen ci alxuraan ñu màgg fekk fi ay magu alxuraan ak ñoo xam ne aussi dañuy dox jëm ci alxuraan. du ñu def loo xam ne dinañ ne suba bu ñu leen gisee ñu ne leen jomb ngeen a def lii donc ñun dañu leen di gërëm di leen sant samay kàddu nag ci sant rek lay nekk presque parce que li comme ni ma ko waxee rek monsieur le maire li mu wax moom la ñuy wax chaque année li ñu ci mën nag moom mu ngi koy dox parce que wax na ko bu demee ba li nga xam ne moom la ñu jagleel éducation ñu dem ba daara yi bu ñu tolluwul ak éducation française bi ñoom ñoo leen di ëppale c'est parce que am na jéego yu bëri yoo xam ne dafa am te damay koy faral di wax ne ko xëy na président yëg na ko yëgu ko mais ci li am ci fan yi ñu weesu mu wax maire yi ñu jël budget bu takku jagleel ko daara yi xëy na dafa ko gise ci yow wala mu déggee ko ci yow wala boog say yëngu-yëngu fekk ne àgg na ci moom ba tax mu mën a def lool parce que fépp fu ñu yëkkati ci département Tivaouane ak ci région bi ci li ñu xam di ko fekkee ñaaxeen dafa nekk exemple ci wàllu woowu ci taxawaay boo xam ne commune da koy jóg jëmale ko ci daara yi et je pense que aussi noonu la commune yi nga xam ne ñoo nekk ci arrondissement bi ngeen di toog di bokk ay jotaay di dox aussi jëmale ci foofu te gëm naa ni bu ñu ko doon def ci région bi du ma ne ci Sénégal yëpp de mais taxawaayu arrondissement ñaaxeen ci wàllu woowu ñun duñu ci des ginnaaw donc dañ koy gërëm di ko sant ci turam aussi maire yi nga xam ne ñoo nekk ci arrondissement bi ci taxawaay boobu nga xam ne moom ñu koy def li ci wàllu administration te mu wax ko xëy na ci at yi ñu génn nii am na lu fi amoon ci ay jafe-jafe jëm ci wàllu Covid jëm ci yeneen i jafe-jafe yoo xam ne comme niñ ko waxee taxawaay bi fii moo rafet dara manqué wu ci ba tax état di daw ngir jéem a defar yeneen gox looloo tax ba léegi xëy na ak seegun fii parce que taxawaayu ki nga xam ne moo ubbi fii def fi xale yi di leen taxaw taxawaay bu mucc ayib la amul dara lu ñuy jooytu lu dul taxawaayu état dikk nekk seen wet te loolu ñu ngi ciy liggéey comme ni nga koy defee ñun itam ci suñu teewaay mais aussi dinañ gën a ñaax ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw ngir ñu am taxawaay boobu jëmale ko ci bërëb bi donc comme ni ma ko doon waxee rek kàddu yi kàddu sant la ci xëy na ni ñuy waxee alhamdulilah di ko teg ba ñetti yoon ci wàllu woo xam ne dafa nekk administration bi ñu fiy teewal ci lii ngeen di liggéey ci loo xam ne cëram la woon ba tax am nañ yaakaar bu ñu ñeneen ñi di tiit ngir suñu ëllëg suñuy ëllëgu doom fii amuñu benn njàqare parce que li ngeen di def ci xale yi di leen ko jàngal di leen ko tàggate am nañ yaakaar que ni suba bu ñu nekkul ak ñoom aussi taxawaay bi ñuy am dina nekk taxawaay bu mucc ayib te du ñu am lii nga xam ne moom la ñu am donc kaddu yi fi jib jóge ci suñu doom ji kaddu yi fi jub jóge ci xale yi mais kaddu yi fi jib aussi jóge ci képp koo xam ne teew nga fi jëmale ko ci wàllu jàmm jëmale ko ci wàllu réew mi ngir ñu am fi jàmm ñun fii de amuñu dara lu ñuy tiit amuñu dara lu ñuy ragal parce que xam nañ ne xale yi Sénégal yëpp bu ñu jaaree ci yoon bii bu ñu amee taxawaay bii fii ak dix quinze vingt ans du ñu am dara lu ñuy tiit ci suñu wàllu diine parce que aussi toll nañ foo xam ne xale yi ndaw yi dañ leen di faqat dugal leen ci leneen loo xam ne dañ naan diine la te du diine loolu du ñu am dara luñ ciy tiit parce que ñi leen di tàggat xam nañ fi ñu leen di jaarale xam nañ fi ñu leen di teg du ñu am lu ñuy tiit ci wàllu woo xam ne dañ naan xale yi kat amuñu yar amuñu teggin parce que fii ku dégg kuy wax xale bu ndaw comme ni ko monsieur le maire waxee am kàddu yu toll nii di ko wax kooku bu màggee dangay am njortu que ni lu weesu fii dina ko am donc ci wàllu yar ak teggin du ñu am dara lu ñuy tiit ci wàllu aussi sàmmoo ak àq ak yelleef yi ñuy am seen diggante état ak état di leen ko jox aussi du ñu am dara lu ñuy tiit parce que tàggat nañ leen ci ñàkk tàggat nañ leen ci ñàkk parce que ndongo daara noonu lu mel dañ koy tàggat ci ñàkk ba lu mu am rek doyloo ko donc loolu aussi duñu am dara luñ ciy tiit moo tax dañuy wax ne dañuy sant. en tant que administration bi ñuy représenté mais di sant aussi ci suñu wàllu bopp ci loo xam ne yàlla defal nañu ñu fekkee ko fi daaw teew nañ fi macha allah ren ñu teewaat fi gis lu mucc ayib ñuy gën a ñaan yàlla ñu fekkee ko ay at yu bëri moo xam dañuy nekk autorité moo xam duñu fi nekkati mais yàlla di ñu baaxee ñuy mën di toog parce que toog dégg kàddu lislaam kàddu kàddu alxuraan dafay yokk. donc fu mu la mën di fekk te nga mën ci bokk loo ci mën ci jéego nga dox ko ngir fekke ko ngir nga am yokkute bopp mais sant ci ñetteel bi sant terminer ko mooy ki nga xam ne moo fi def lii ñu koy sant di ko gërëm parce que li muy def mënoon na am ay moyem toog ci biir njabootam ak waa këram mais daf ko ubbi tijji fii nii doomu Sénégal mën fi toog fu mu mën di bàyyeekoo mën a ñëw te bu ñëwee li ñu lay laaj lu néew la du tollu nenn ci loo xam ne yow li nga waroon def pour sa doom mokkal alxuraan nekk ndaw mën a nekk magu ëllëg bu baax donc moom itam dañ koy dolli sant di ko gërëm di ko féliciter mais ci gox bés bii ñuy dolli di ñaanal parce que comme ni mu tuddee wéy juram bërëb bi bëgg na lépp lu fiy jóg aussi di yiw jëm ci wéy juram yi ak mbokkam yi nga xam ne ñoom lay defal lii ñuy ñaan yàlla ñoom itam yàlla dolli yërmande si ñoom ñaan yépp lu fi ñaan mu yegg ci ñoom